وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ولقد كرمنا بني آدم وهملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في زهر مولد من في البار ربانا لله الزكري في سهر ربيع هنا على ابتداء الذي اختار خربانا قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإعلانا دعوت برا رحيما نعم كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا كاوين بكل فيزا يوم توزعتا حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتني فالتهب للعام يا سمدي إدمان خير وإسعادا وإسكانا ربيتني بعد إتعام وتروية عن يوم تروية إذ جوت سبيانا مكنتني بعد ديخ زغتني حللا موسعا بعدما قد أخت عريانا ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسقت لليوم إيقانا وبرهانا إزرب قلوب النصارى يا خدير إلى نزري ورد لي من قد عز وهانا بكونك الواحد القهار منفردا بقهر عدانا على بسرعة إدمانا نبتني أمس تنبيها أرى عجبا أنت البديع الذي ما زال رحمانا يا زرتني أمسي أبل اليوم توزعة بها ألازم ما ترداو إحسانا mbokk jullit yi ñoo ko gisandoo gis ngeen li nga xamante ni moom lañ leen doon wax muy euh, bis bi nga xamante ni ca la ñu wafaate woon suñu wéyjur woowu nga xamante ni mooy Serigne Bassirou Mbaye di imam fa mu nekk yàlla na ko gënal fi mu jógee lii ne sama ginnaaw nag mooy barab bi nga xam moom la doon tabax muy jàkka yi nga xamante ni mooy néegu suñu borom suñu borom def ci nag macha allah loolu nga xam ne def na ko ci yàlla na nekk tawfiix ca moom ndax suñu borom jàpp naa ne ku koy jihaadal jihaadal nga ko mën a jihaatal suñu borom mane na fu ne mane na ker gi mane na naaj bi noo jëflanteeg moom dana jëflanteeg moom ne macha allah sëñ Basiru Mbay moom nga xam mooy imam fa mu nekk yàlla na nekk noflaayam bàmmeel yàlla na nekk noflaayam ndax xam li mu bëggoon mooy tabaxal suñu borom ab néeg waaye nag lii nga xamante ni moo moo wàcc moom yàlla na ko suñu borom defal tawfiix sama njaboot gi suñu borom sàmm leen te aaral leen boobam làqal leen boobam fa yàq yeggul lii sama ginnaaw mooy barab bi nga xamante ni moom la tàmbali woon ñu def ko ci loolu mu nekk loo xamante ni nag yéem nañu bari am na ci ñoo xam buñ ko déggee danañ li nu mënee nekk la ca laxasu yëpp daa bari waaye ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam moo bari sutura yàlla na suturaal ñëpp suturaal ñëpp ci barkeb alxuraan ak xasaayit mënuñoo wax lépp nag ndax boo waxee lépp rek am na ñoo xam danañ ko gisee neneen waaye yàlla bari na sutura te xam nañ lépp li ci biir ko kon Serigne Bassirou Mbaye mi nga xam mooy imaam yàlla na sutura suuf oyof ci kawam te suñu borom tabbal ko àjjanay firdawsi ci barkeb alxuraan ak xasaayit barkeb yàlla na wàcc ci ñun te wàcc ci njaboot gi yàlla mën na ko am na ko kon nag jërë ngeen jëf ca la ñu bañoon nag gone yi nga xamante ni ñoo ne ci dëkk bi gis ko am neneen ñu moo tax ñu daal ñuulal nii dégg ngeen na mu ni moom loolu tax mu yëkkati lii nga xamante ni daf koy fàtt ñuulal ko ngir bañ gone yi ak ñi nga xamante ni buñ ko gisee seen xel dem ca góor ga moo tax mu daal koy def nii kon nag sëriñ bi nan la mbir mi demee eh, ci ñi nga xamante ni moo waral jëf ju mel nii hmm. asalaamaaleykum wa rahmatullah sama mbokk yi maa ngi leen di siyaar baax leen balu xaq di ñaan suñu borom bool na jégal ci barke Sëñ waaye mbir mi de moom ni mu demee dama lay damay wax rek ni fii ba bu ñu doon dund jun mille ans ku ma yee nit fa ma jaaran nag laay jaar xam nga euh, grand bi fii dañ koko may ci gàttal mu tabax fii ñaari kalaas yàlla dogal bi mu fa tabaxee ñaari classe nisrën da parce que 17 heures bu jotee gone yi bu ñu génnee fii di jàng. di julli ci biti la ñuy julli mu woo ma ni ma fii de wax dëgg na nisër naa fi jàkka ndax xale yi bu ñu génnee mën a dugg ci biir julli mag ñi fi nekkit ñi nekk ci koñ bi ku bëgg a julli ñëw julli. Mhm. booba suñu borom dogal na booba jumaa ji dëkk bi am. Mhm. booba xamuñu booba kenn nisëragu ko daal kenn waxugu ko. Mhm. Eh, loolu bokk na ci mébétam yàlla dogal nag. dëkk bi wut jumaa mu dem ca mu mu mu tabax leen jumaa ji tabax leen jumaa ji ba mu àgg ñu jiñ ko ci coowal fenêtre yaa saaj fenêtre bi nangam mag nangam te fenêtre bi ka ko mayoon mi ngi fi waaw ka ko mayoon mi ngi fi ci gàttal maanaam yàlla dogal nag altine ñëw na fi waaw ñëw na fii léegi suñu borom dogal eh, benn bis bisub lëndi la trois yaakaar naa la trois mu ñëw fii di defar jàkka ji ma nekk sama kër moo boori takkusaan yooyu ñu suut benn xale yi ñëw ci man mu ne mu ne mu ne ma ñëw ma papa mu ne ko ma ne ko mbàkke mu ne ma wul sama wul bàyyi nee da ngaa da laa yàkkamti man nag moom damay def ñaare lu ma man di jàpp bu ma kilifa gi ne dama laa soxla lu mu mën a doon rek dama ko fay ba. Mhm. bu dul jaamu yàlla xanaa ma nekk ci julleeg bu mel noonu. Eh, léegi ma jóge fa ñëw maa ñëw fii fekk booba ñu wër ko. dégg nga maam ay quelques personnes wër ko am ku ñuy wax sóoru jéey yor fa jaasi di ko menace de mort lu ne ba mu xamee ne maa ngi ñëw nag ñoom ñu xam ne lii ñii fi ne du am du ñu am doole pour maanaam man koo mën na dal ci koom ñu daal di arrière dem ci leen demee sa suba sa nag sa taxul sama xel daal wallaahi asim ma teel a xëy fi fekk ko fi ma ko fekkee ñu toog fi gaa yi gaa yi ci talaata ji nga xam ne ñoo faat bas tey ci kër seedu village bi dañ doon réunion ndekete mm. pour nu ñu def ba dal ci kawam xam nga loolu doy waar sëñ bi en tant que chef de village en tant que imam di réunion ci kër chef de village pour nunu faagaagale nit loolu sëñ bi lu doy waar dégg nga léegi tey buñ gi génnee ñu ma fekk fii ma toog ñu nekk fi di ci yéen téléphone di woote xam naa dañuy wootante ñoom mhm. eh, bu ñuy wootante ba mu yàgg ma gis demaat léegi sama téléphone bii ma ko doon sarta sama kër ma ne garab bi xaar ma dem mm, jël ko te ñëw bi ma demee bi ma rujjee téléphone ba da ko def sama rek laa dégg yuuxi ma daw di ñëw bi ma dawee di ñëw ñu dogale ma imam moo imam bi ak ñaari rakam ak Pape Dieye ak ku ñuy Cheikh Ba daba dogale ma fi bi avant ma lañ ma dogale ma kar moom daal di door dóor jeesi dégg nga buñ ma dóoree jeesi jeesi ji uh, wadd lemu ma jàpp ko moom bëmax ko mu dugg ca ñax me mu duggee ci ñax me mu génne benn paaka bu gudd nii ci wetu góosam daal di koy kii bëgguma koo jam heureusement daluma wax dëgg yàlla ni tuuti bi ma xamee loolu rakk ji daal di daw rakkam ji mu bokkoon rek ma daw door ma pel ci bopp ma door ci pel ci bopp ma am problème mu mënatumaa xam fu ma ne ci leen ma jël yóbbu ma sama kër man daal damaa ji ko ba caag rek eh, ci loxol sama benn doomu day wasay ñang mu naa ma du ma duñ la bàyyi ngay dem ñu lay rey parce que nangam nangam foofu nag laa amee ba ma ñëw ba ma bi ma demee ba xam fi ma ne nag laa ko nag bàyyi ma dem parce que damaa war a xool garaan bi ba xam ci ne parce que dama ko xaal nu koy faat mhm. ndekete ko liñ ko def noonu la demee buñ ko biñ ko faatee nag biñ ko biñ ko jamee liñ koy jam après nag gars yi ñëw sama kër gars yi dama ñëw sama kër ñu ko faat ñëw sama kër pour maanaam bëgg a daal sama ko mayet fekk na booba ma tëj ñu tëj buntu kër bi ma nekk ci biir fi nu demee ba continuer dem ci laa joxe génn lañ ma ubbil buntu ma dox génn gis ganaar bi ndekkat ñu jam nañ ko jam poson jamin boo xamante ni ba mu ñëw comme que yoru ko yére yi mel ne dañ koo xooj ci paanu encre bi leex walay tale booba am na ku mu ànd am na ku ko gis Abdou Niang e, nar koo laal man ko bu ko laal ndax boo ko laalee dina daanu mën naa daanu ci mbedd mi ci wuyaay bi te boobu boo ko teg loxo rek léegi na ma dina daan wér na man kii ñëw jomoo ko indi ak fit ak bëggut a faatoo ci kër kër gi ndax xale mu ñëw sama kër pour faatoo man xam naa lii ko tax a jog muy ñëw mel na kuy rokkoo su kuy rokkoo dara ji naa dara ji sa di di di déglu ba mu dikkee moo yëgal boppam toog tàllal ma loxo di yooram damaa taal doxal bu mu tax daal bi ma taal doxam di yooram matul deux minutes mu dëpp euh, kanam gi suuf daal di fuddutu foofu la faatoo waaw noonu la demee waaw. Ah, ah, kon de ñoo ko déggandoo yéen ñi nga xam ne yéen a ngi bàyyi xel. métti na lool métti na lool. ndax suñu wéjur wii ni mu koy euh, nittilee rek ngay war a xam ni lu métti la ci déggin lu métti la ci gisin waaye lu métti la teg ci jëfin nañ ko jëfee métti na lool waaye suñu borom dara yéemu ko dara tëwu ko dara jaaxalu ko giñ naa ko ci barkeb alxuraan lépp suñu borom mi ngi koy gis te lépp dana ko fajal boppam ñu ngi ñaan suñu borom may leen xolug muñ te suñu borom gën leen a dëgëral gën leen a sàmm lépp ñu ngi koy bàyyi ci loxo sunu borom di ñaan fa mu nekk yàlla na ko gënal fi mu jógee li mu mébétoon yàlla na ko njaboot gi yeggale te buñ ko yeggale yàlla nañ am ndam lu rëy rey rëy ndax lépp nag mbirum lislaam la lépp diine la génnul diine daara jeeg jàkka jeeg njaboot geeg lépp diine la kon ñu ngi ñaan bu baax a baax suñu wayjur bi fa mu nekk yàlla na ko gënal fi mu jógee suuf si yàlla na nekk nag woyof toll ci kawam bàmmeel yàlla nay noof laayam ci barkib alxuraan kon nag jërë ngeen jëf mbokk jullit yi mbokk taalibe yi lii lañ leen indi nag indiloon tey fii ci diwaanu fi nga macha allah mooy njéen ak li ko wër yëpp macha allah kon nag jërë ngeen jëf